ginnaaw libération nga xam ne moo di Ousmane Sonko naka noonu ak Bassirou Diomaye fay ne ni euh, démb tey nag ñoom ñu woote fii ci hôtel euh, yi ngir fas yéene jàkkaarloog askan yi ngir mën a def li nga xam ne moo di seen déclaration alors ñoo ngi ko gisandoo gis ngeen image yi président Bassirou Diomaye Faye mooy euh, romb noonu. ginnaaw déclaration bi nga xamante ne amaloon na ko euh, tey file ci hôtel Ville mu doon bërëb boo xamante ne c'était rempli de euh, monde yéen a ko gisandoo gis ngeen capitaine Touré moo ngi noonu di euh, génn li lañ ñëwoon teewaloon di xaarandi rek li nga xam ne moo di génn Ousmane Sonko jamono yi may wax ak yéen nag mu ngi ci biir salle bi di xaarandi ngir mën a tàmbali li nga xamante ne moo di caravane alors comme nu ngeen koy gisee jamono yi ci image yi ba tey ñu ngi fii ci hôtel hôtel Arboulaye di leen teewlu ba tey li nga xam ne moo di génn Ousmane Sonko comme ma leen ko waxee ko tout à l'heure gis ngeen ci image yi lépp nga xam ne moo di Aïda Mbodj moom ak nga xam ne moo di Maymouna Abousso ñu xàmmee leen wala boog ñu ràññi leen bu baax baax ci li nga xam ne moo di kër Pastef ñoom nag ñu ngi woon tey amoonoon fi teewaay bu am solo lool comme nu ngeen ko gisee jamono yi nag ñu ngi toog ba tey di xaarande ki nga

nee nga rek pour projet bi kon donc pour ñu leen recevoir bu fekkee jëmmi Ousmane Sonko rek moo tax ñu gis benn état d'esprit bu bees mu naan tax parce ki ñu joxoon moo tax dañoo bokk maanaam dañoo bokk lu ñëpp muy Sénégal ñu bokk lay bokk baay. Ousmane Sonko Diomaye maanaam bu ma dégg Ousmane Sonko mooy Diomaye Diomaye Ousmane Sonko déedéet c'est le sang c'est le sang kii Joolaa la kii séeréer la kii tukulóor la man ni sama yaay tukulóor sama papa lebu kon li fi jar yooyu noonu amul Ousmane Sonko bu ko neexoon tànn keneen mais dafa xam kii gën senegal mu def ko loolu la su ko neexoon du am candidat su neexoon daan non man naay candidat bi où est mais bëgg a dimbali Sénégal moo tax mu tànn Jom Bassirou Diomaye donc bëgg a sauver Sénégal moo tax mu tànn Diomaye kon donc ñun patriote yi dañoo pare bu yàgg pare nañ te dinañ gañ a laajee ñun ñu ngi duus biir réew mi ñu ngi desaaroo ñu ngi dugg ñu ngi def liggéey bu mucc ayib surtout maa ngi si àll kenn du ñoom ñu liggéey boo xam ne liggéey bu extraordinaire day sax nii nii ñu ngi war dem Ziguinchor donc nuyu waa Ziguinchor baax waa Bignona waa Sédhiou waa Goudomp baax xam nga di leen ñaanal jàmm ak salaam comprendre nga donc ñun projet bi dañ ci nekk depuis bañ ñee élection yi jàpp ne ko le 24 février lañ commencé ñun commencé campagne ñu ñuy jàpp di tëj ñuy daa jooy di ñu toroxal di ñuy tëj di ñuy damm di ñuy dóor comprendre nga kenn waxul porte combat bi ak patriote yi ànd ko muy fierté nag ak unité avec kon donc mooy sant damay sant patriote franchement waaw di wax influenceur nañ nekk programme bi rek di wax influenceur maa ngi nuyu bu baax influenceur yëpp fàttewu ma kenn góor ak jigéen mag ak ndaw surtout maa waa diaspora bi ah kontaan naa jaajëf jaajëf waaw gis nañ ne engagement bi document nekkoon ci Azoura moo fi nekk tey da ñëw sax téye drapeau bi ñu naan xool leen xam nga feebar yàlla moom ko teg du doomu aadama ki ma dugal kaso dëgg la doomu yàlla moom teg feebar dama koy naqal matalu dama koy nangu nag dama koy nangu waaye taxul ne man noo ma bàyyi ne ma bàyyi nag parce que am na ñoo xam ne feebar bi mënuñ jóg ñi dam nañ seen tànk ñi ñi faatu nañ ñi rey nañ leen ñu pet nañ voilà mënuma wax xam allah rabbi ñu ngi def caravane bu am solo boo xam ne bu ñu paree campagne bi dinañ dugg kër bu nekk jàlle sa doom waaw di Ousmane Sonko mu ngi nuyu ñëpp waaw nee na nee na la te ñun xam nañ loolu man xam naa loolu mooy message Ousmane voilà mooy daal kontaan nañ mon frère bu bëgg Sénégal Ousmane Sonko jaajëf doomu bu bëgg Sénégal Ousmane Sonko jaajëf teewlu li nga xamante ne moo di génn Ousmane Sonko pour avant moo amal li nga xam ne moo di caravane am di wutali fële ca Ziguinchor. xam Bismillah, bismillah.

Macha Allah. Hermano. Ay, doucement, doucement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, doucement, pas le bourg. Pas le bourg, doucement. Sonko rek la ñu ñoo ko direct président Sonko mu ngi di génn ngir dem amal li nga uh, di caravane am jubali yoonu Ziguinchor mu ngi di waaj départ gis ngeen ko ñu koy gis direct moom Ousmane Sonko dugg ci oto bi ngir amal li nga di caravane uh, Mana Mana image yi ñu ngi jàkkaarloog oto bi nga xam ne moo ci biir président Ousmane Sonko moo ci nekk fas yéene commencé li nga xam ne moo di euh, campagne am jëmal fële ca euh, Ziguinchor ñu ngi koy xaar mu ngi noonu oto baa ngi euh, départ ngir mën ñu dem amal seen campagne. ci kanam fan ci kanam noonu yéen ko gissando président Ousmane Sonko genn génn basiru jom hay fay ngir mën dem amal sen euh, campagne genn ci li nga xamne mo di euh, Ziguinchor cior a ko gissando gis genn ful bi nga xamne bo ba tay ndekete ñu ngi euh, xaar di xaar di xaar nga xamne mo di président Sonko ngir mu mën genn ah yéen ko gissando ñu ngi ni jakarlo li nga xamne mo di. ay président ay ay ay ay నేను Ini mesin lagi, ini mesin boleh tiu. Sangkan ini, bayar anu ini. Eh, dulu me. Bạn ready. Xong. Đấy kia kia kia kia. Cải. Cải cải. Học mà phi đây mình để ta không ạ. Không ạ. Go!